Walfadjri Walfadjri Walfadjri ñu jox kàddu gi Moustapha Diop ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax. asalaamaaleykum. mbokk yi. maa ngi leen di nuyu ku nekk ci yéen ci turam ak santam ak fu ngeen man di bàyyikoo ci biir réew mi ak ci bitim réew ñëw fekkee ndaje bi maa ngi leen di nuyu ci turu Walfadjri ak ci turu ki nga xam ne moom moo ko jiita tey muy euh, Cheikh ñas kàddu yi kàddu yu gàtt la ndaxte dañoo am euh, ndaje moo xam ne dafa am ay doomu Sénégal yu bari yoo xam ne teew nañ fi te bëgg nañ ndànk-ndànk ku ci nekk ñu jox ko kàddu mu wax wax jooju nag dañ koy tënk ci lu yomb moo di ne tey ñun suñu xol dafa fees li ko feesal lu yomb la damay wax ne Walfadjri nit moo ko fondé teg ko ba mu nekk li mu nekk nit kooku ñu tudde ko Sidi Lamine Niass yàlla mi dara tëwul décembre 2018 mu jële ko fi ba mu ko fa jëlee ñu bari ci Sénégal ne woon nañ ne Walfadjri tey lay jeex comme Sidi Lamine nekkatu fi ñun li ñu mësoon a gëm mooy Sidi Lamine Niass mi taxawal Walfadjri su fekkee ne li mu liggéey dëgg la bis bu fi jógee la Walfadjri yi gën a bari doole. te te loolu euh, wane ngeen ko seen taxawaay wane na ko Walfadjri dama bëgg ngeen jàpp yéen Sénégal gépp que ne Walfadjri Sidi Lamine Niass moo ko jël def ko muy héritage yu Sénégal ak doomu Sénégal bu mënti doon. doomu Sénégal yooyu comme ñëpp mënuñoo ànd nekk ay journaliste wala ay manager ñu tenn ñenn ci ñoom muy ñun ñuy taxaw ne ñu yéen la ñuy dénk ngeen yoral ñu Walfadjri donc lu dal ci Walfadjri lu mu métti métti ci ñun jàpp nañ ci yéen la gën a métti moo tax bi ñu fayee signal bi ñun dañu gëm seen attachement ci Walfadjri te ngërëm gi leen ciy gërëm dafay am commencement mais amul fu muy yem te incha rab bi Cheikh Niass bi nga xam ne moo ne ci bopp Walfadjri tey suñu demee ba ca cëppaandalu waxtaan wa dina ñëw yëkkati ay kàddu jëmale ko ci yéen lii dañ ko doon lay taayee waxtaan wi rek ngir gërëm leen gërëm leen ci seen taxawaay di leen wax ne nag li ñu nam woon ñun waxoon ko ñëpp dégg ko mooy dañoo bëggoon a am lii ñu tuddee VSD wu manifestation maanaam vendredi samdi ak dimanche autorités yi nga xam ne ñoom lañu ñu dénk réewum senegal ñoom ñoo ñu wax ne tey jiide de mën ngeen a def fii ci buntu Walfadjri waaye bu ëllëgee samedi ak dimaas duñ ñu ko mën a nangul biñ leen may leen ma ñëw rek may leen ma ñëw rek. may leen ma ñëw alors. bi ñu leen waxee lan moo tax ñun duñu mën a amal manifestation ci buntu CNRA lan moo tax ñun duñu mën a amal manifestation ci place de l'indépendance ñu ne ñu li ñuy tontu politiciens yi tout le lañ ñu tontu mooy risque de trouble à l'ordre public entrave à la circulation des personnes et des biens ñu bëgg a xamal ñu bëgg a xamal waa Sénégal gépp que ne ñun Walfadjri nekkuñu dans le cadre d'une adversité politique ak benn régime nekkuñu dans le cadre d'une connivence ak benn parti politique bu met nekk Sénégal li oustaz Adi Niass wax sànq mooy suñu mission du ñaar du ñett mooy far ak la vérité far ak doomu Sénégal yi ndax ki nga xam ne moo ñu dénk Walfadjri doogay wuy ji boromam lim ñu doon wax tout le temps mooy créé wu ab tele pour ngeen ci wut xaalis bu leen ci fay bor bu leen ci lebale lim ñu mas wax mooy doomu Sénégal bu am lépp lu ko metti amul fu mu ko waxee ñu ñëw wax ko fii moo tax bu ëllëgee ak jàmm incha allah bu 10 heures jotee du ñu dem place de l'indépendance du ñu dem CNRA waaye incha allahu bi dinañ yëngu ba ñëpp xam ne yëngu nañ bu subaa ak jàmm incha allah ñu am encore une fois encore bala ñuy pare wax bala ñuy pare waxtaan incha allah ñu dégloonte tuuti rek ñu dégloonte waxtaan. tuuti rek bala ñuy pare waxtaan incha allah moom Cheikh mii taxaw dina ñëw yëkkati kàddu yooyu wax leen lan lañ namm def bu ñu yàkkamti parce que ñi fi toog war a jël kàddu dafa bari li ma bëggoon a jeexale sama waxtaan ci lu gàtt mooy dama bëggoon a yëkkati ngërëm jëmale ko d'abord ci ñëpp ñi nga xam ne ay soppe soppey Walfadjri lañ ak fu ma nekk senegal mais jëmale jëmale ngërëm jëmale ngërëm également am na ñoo xam ne Cheikh Niass moo leen gërëmal boppam bu ñu ca yeggee mais dama bëgg a jëmale ngërëm particulièrement ci képp koo xam ne da nga bokk ci famille wu presse Sénégal journaliste technicien photographe chauffeur ak ku mënti doon ñun gëm nañ ne bi ñu fayee signal Walfadjri ba léegi képp ku nekk ci ñun ci ñoom nga ñëw ak nga bañ a ñëw am nga loola metti sa xol ñu ngi leen ciy gërëm bu baax a baax am na ñu baree bari ci ñoom ñu ngi ñëw fii taxaw ñu ngi fii ci ginnaaw gis nga leen li may jeexale sama kàddu di ko wax sénégalais yëpp di ko wax la làkkuma tubaab maa bañ di wax la famille làkkuma tubaab ma tubaab jërëjëf jërëjëf alors li ma bëgg a wax jëmale ko ci sénégalais yëpp particulièrement la famille de la presse sénégalaise wax naa ko bi ñu jàppee sama frère sama àndandoo muy Pape Alé Niang mi ngi fii toog nee woon naa waxoon naa ne une injustice kenn du ko expliquer kenn du ko justifier da nga koy xeex loolu moo tax ma ne li dal ci journaliste Sénégal dal ci Walfadjri ak fu mu mënti jógee ak kum ñu mënti doon ñun duñ ko justifier duñ ko expliquer dañ koy xeex ba mu jeex boo gisee tey la àjjuma ñu ne tey ci 18h30 la ñuy taalaat signal Walfadjri ñu ne Walfadjri day def sitting tey mais ku sa xel gàtt danga naan comme dañuy taal signal 18h jëratul sitting mais ñun suñu combat dañ koy mener pour l'avenir dañ koy mënee pour la postérité dañoo bëgg lii ñu dal mu bañ a dara ci Walfadjri bañ a dara ci benn sénégalais may fàttali ne. may fàttali ne may fàttali ne foofu laay tëjee parce que mi ngi bëgg a gudd may fàttali ne marche bi Sidi Lamine Niass mujj def ci kaw suuf defalu ko woon wal fajri la presse sénégalaise yëpp la ko defaloon. te bu boo ba boobaa bañ ko ko doon waxtaane Oustaz Assane Diouf mi ngi taxaw daf nañu xeexuma pour sama bopp dama xeex pour génération journaliste yi di ñëw parce que li may xeex bu ñu ko gañee dinañ